salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di ñaan yalla ngeen am jamm fu ngeen mëna tek fu ngeen mëna a nekk yàlla na jàmm yàlla euh, fekk leen fa ñu bëgg leen di indil rek njëriñ boo xam ne nii dina baax ci mbirum wërsëg moy dina yombal wërsëg dal inshallah lool nak day delu ci alquranul karim moy kep ko xamne dafa bëgg wërsëg suñu borom bo xëyee mu dila masal dara da ngay faral di jàng aaya bile inna allaha huwa rasaqu zul al matin limi tekki moy yalla moy wërsegalé té moy borom katan bu mag bi te zariyat zaariyaat 58 kep ko xamné dang koy jang 27 fois muy ñaar fukki yoon ak juroom ñaar gannaaw julli suba gu ne ba mat 40 jours insha allah sa wërsëg dina ko ba tay képp koo xam ne nii dangaa bëgg wërsëg ngay faral def guddi gu njëkk ci weer wi nga jàng faatixatul kitaab junni yoon boo noppee nga jàng rabbana ansil alayna ma ilatan min تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين nga jàng ko 114 maanaam fukki yoon ak ñeent soo jàngee loolu ba noppi gannaaw boo jàngee loolu ba noppi nga teg ci waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu inna allaha balighu amrihi qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadran boobu itam ay bobu nga jang ko 21 et fois dégg nga hmm? nga jàng ko ñaar fukk yoon ak ben so pare nga tek ci ya rasaaxu ya fatahu ya wahabu ya xanniyu ya muxniyu ya basitu deng nga nga def ko fukk yoon inshallah suñu borom dina ubi sa wërsëg bu dee nag da ngaa bëgg da nga am aajo bëgg suñu borom fajal la aji bu 10 lol. lol da ngay jang 12000 basmala muy fukki jinne ak ñaar fukki junne ak ñaar yoyu ginnaaw jinne bu nek nga julli ci yonte bi ali salatu wassalam lol de soko defé suñu borom subhanahu wa taala man na la fajal sa soxla 12000 basmala ginnaaw junne bu nek rek nga julli ci yonte bi ali salatu wassalam ya xam ban julli ngay julli ci yonte bi ali salatu wassalam deng su fekke nak da nga bëgg ba tay tam euh ci fatiha nga koy faral di jang gannaaw bo xamé ni julli nga suba ba nopi nga diko jang euh 2500 ñaari junne ak juroomi téeméer ñaari junne ak juroomi téeméer nga diko jang sa yo yoo su fekke ne tay da nga bëgg yalla ubbi la ci walu wërsëg wala mu ubbi la ci walu xam-xam wala nga am ay doom bëgg yalla ubbi len ci walu jang ubbeeku dal inshallah sun borom dina la ci dimbalé su fekké nak da nga bëgg fajj soxla nga xamné xaaliss xaalis nga mom ngay bëgg suñ borom dimbalé la ci ci walu wërseuk ba tay tam ci basma la ngay dem ni ngay def moy da ngay jang bismillahirrahmanirrahim 313 koku mom su fekké ni wërseul nga bëgg bëgg sa yo xey rek nga jang basma 313 kuko saxal suñu borom dina yomb sa wërsëg incha allahu taala bu dee nag tey ñaari way dencante muy jëkkër ak jabar yoo xam ne dañoo bëgg nobante seen diggante seen diggante gën a neex mel ni euh, mburu ak soow waaw su waa léegi ñoom ñaar dañuy bind aaya bii waaye dañuy wut safaraan ak misk dégg nga ñu bindee ko aaya bii def ko ci fonde wala sombi wala soow wala jus naan ko ñoom ñaar danañ nobante lool danañ bëggante aay bi ñuy bind moo nekk nii wa basiri lasina amanu wa amilu saalihaati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhaar kullama rusiqu minha min zamaratin risqan qaalu haza lazi rusiqna min qablu wa utoo bihi mutasaabihan wa lahum fiha aswaajun mutaharatun wa hum fiha xaalidun nañu bind aaya bii juróom-ñaari yoon daal ko def ci li nga xam ne ni moom mooy soow wala nga def ko ci meew wala ji wa akam loo koy def rek ngeen bokku lek yeen ñaar seen diggante daal dana neex lool dana melni ni ak dana melni lem ah ak sow inshallah taala jàmm rek loolu nak ñi nga xamni ni moy ñi nga xamni ni bëgguñ ay ay ay ay wujji wala sax goor ñi nga xamni ni ben jabar lañ préféré wala sax ñi signé euh, monogami te légui bëgguñ seen diggante nakari ah bu ñi faral def li rek inshallah suñu borom subhanahu wa taala dina leen dimbale bu baax a baax baax a baaxé nañ leen ko ba tey itam ba tey nag su fekkee né tay yow da nga bëgg nit bëgg la moo xam goor la wala jigen la wala sa patron la wala sa kilifa wala sa bay wala sa dom wala sa yaay nga bëgg mu sopp la lool ni ngay def moy la dem ci alquran dem ci suratu yasin nga bind ay bi qala man yuhyil azama wa hiya ramimun qul yuhyiha allazi ansaaha awala maratin wa huwa bi kulli xalqin halim allazi jaxal lakum mina sajari axdari naaran isa antum minhu doon aay bii ngay jàng juróom-ñaari yoon waaye nag yoon woo ko jàngee da ngay tëfli da nga koy tëfli ci aw xeer ne diw sàngam bëggal diw sàngam ba def ci moom diw sàngam bëggal diw sàngam ba tàggu sa ko nga tëfli ko ci xeer woowu noona léegi nag da ngay boyal ab furna ba mu boy léegi boo boyalee furna ba mu boy léegi ngay jël xeer yooyu boo jàngee juróom-ñaari xeer yi xeer wu nekk nga tëb ci aaya bi boole ko turu ki nga bëgg mu soppante mu sopp ko wala mu sopp la wala ñaar ñi nga bëgg ñu bëggante léegi su ko defee boo ko tëflee ci juróom-ñaari xeer yi ba noppi nga jël juróom-ñaari xeer yooyu jël leen benn par benn di ko sànni ci furno bi nga xam ne nii danga ko boyal ba mu tàng jipp jipp jipp ba mu boy wala nga sànni ko ci biir safara incha allahu taala koo ko def dina ko sopp lool dina ko bëgg lool dina def ci moom ba du ànd ak sagoom incha allah bu dee nag góor goo xam ni dafa am jabar nopp ko lool bëgg ko te jabar ja di da ko di indi ay jafe-jafe di ko indil problème am na solution solution bi mooy lan mooy moom jëkkër ci boppam na jël aaya bii nii bind ko ci mburu wala ci bonbon wala sax mu bind ko ci lu mën rek wala ci fruit daal di ko jox ndaw sa mu lekk ko su ko lekk ndaw sa dina def ci moom dina miir ci moom mooy ban aaya yaa ayyuhal lazina amanu isbiru wa saabiru wa rabitu wa taqullaha laalakum tulyoon ci Ali Imran muy ñaar téeméeralu aaya ba muy numéro 200 nga bind ko ci la dara jox ko sa jabar mu lekk ko incha allah mu taggu sagom ci yow bu fekkee nag day euh, jigéen ji moom la jëkkëram mere moom itam subaa léegi aay bi muy jël mooy wa mina naasi man yattaxisu min duunillaahi andaadan yuhibbuunahum ka hubbillaah wallaziina aamanuu ashaddu hubban lillaah walaw yaral laziina zalamu iz yarawna al-azaaba anna al-quwwata lillaahi jamii'an wa am laa shadiidul azaab ca suratu baqara mu bind ko téeméer ak numéro kon téeméer ak juróom benn fukk ak juróom léegi mu fexe ba def ko saafara def ko ci la jëkkëram di lekk ah, defal ko ko ci lu muy lekk wala ci lu muy naan incha allah dootul la fase incha allah sa diggante moom dina neex lool macha allah bu dee nag danga ngaa bëgg a mucc ci ay àdduna yi feebar yi ak jafe-jafe yi ak problème àdduna yi suba léegi da ngay dem ci alquranul karim ba tey waaw jullit moom lu mu jaaxal rek da dellu ci alquran su ko defee mu dem ca suratu baqara muy lu ñu tuddee xam soona xaaf ci mag ñi mu dem ca aaya bu ñu aaya numéro 246 ci surtout bakara ak 181 ci surtout ali hamran mu dem surtout nisa 77 surtout maida 27 surtout rahdi 16 ay yi mu jëlin juromi aya la aya bu nek amna fukki khaf mu koy bind def ko téré wala ndombo denga wala mu ko mëne jang mu koy jang incha allah jafé jafe àdduna yépp sunu borom dina ko ci xettali sunu borom dina ko ci dimbali musal ko ci insha allahu taala su dee nak da nga am problème ak nit su fekke da nga am problème ak nit mu jaaxal la lol nga ragal mu tejj la wala mu toroxal la ba ni ngay def moy lan mu indi la yim secret bu yeme yeme yeme bu garawa garawa garaw, a insha allah lan da ngay da ngay wax keef ha ya ayn sat waye nak da nga nga bank ben baram sa loxo jor nga ne ha nga bank benen baram sa loxo eh, jor ya nonu ay non saat muy juromi haraf, sa juromi baram yi jeex nga ne xaa miim ayin siin qaaf ci loxob càmmoñ bi momi ci muy juromi haraf juromi baram yi jeex nga jang alam tara kayfa faala rabbuka bi asaabil fiil alam ya jahal kaydahum fi tadlir nga jang ko mom ba yegg ci tarmihim legi nak suko defé so yegg ci tarmihim nga tarmihim ben benki ben baram tarmihim benk benk benn baaraam ci loxo jor tarmihim benk benn barang ci loxo jor ba mu jeex nga ñëw ci loxo càmmoñ bi su ko defee muy fukki yoon tolloog fukki haraf euh, yi nga jàngoon su ko defee nga ne bi hijaarat min si jirin fa jaalawum kaas ma makoolin loolu léegi képp def ko ko mitim jakarlo ak nit def ko incha allah sunu borom dina la musul ba tay tam ci fajj soxla kep ko xamne da nga am soxla mu jaaxal képp koo xam nga am soxla bu rëy nga bëgg koo faj ni ngay def mooy lan boo julle suba ba nëppi da ngay jàng fatihatul kitab bi nag saar bi yëpp ngay jàng mais doo jàng basmala saar bi ngay jàng 1011 muy junne ak téeméer euh, junne ak fukk ak benn dégg nga waaye boo koy boo koy jàng nag doo ko teqale doo fi nelaw doo fi wax doo def dara insha allahu taala soo ko defee borom subhanahu wa taala mën na laa batay tam itam képp koo xam ne nii nga batay itam képp koo xam da nga bëgg a dàq jinne wala nga bëgg a dàq rab wala nga bëgg a dàq ci nit ko xam dafa daanu wala sax bo dafa am rab wala kër go dafa am rab nga bëgg mu joggé fa ni ngay def moy bindal fatihatul kitab bu sel bind ayatul kursi ben yoon léegi su ko defee nga dem ci sotu jinni juróomi aayu njëkk ya nga bind ko def ko saafara daal ko wis ki nga xam ne nii moom moo daanu rab dégg nga wala néeg bi nga xam ne nii dafa amee rab incha allahu taala soo ko fa wisee. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi maa ngi leen di yu baax di leen ziyaare di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaahi saydil jot salawaatullahi wa salaamu alayhi ginnaw lolu bëgg leen di jox benn njëriñ bu baax ci njaboot gi njëriñ bu baax lool ci njaboot gi mooy ñi nga xam ne dañoo yor ak njaboot ñu toll ci jàng ak ay formation nañu fexe bindulu aay bii di sa nuquri uka fala tansa sa nuquri uka fala tansa sa nuquri uka fala tansa nga bind ko junni yoon def ko ci butéelu Evian bu mag di lit teg ko ci kër gi xale yi daal chaque mercredi rek buñ xëyee balaa ñu lekk dara ñi naan ci incha allah seen borom mën na leen di dimbale lu ñu jàng daal du ñu fàtte jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.